Euh, bokk na ci xeet bi ci yëngatu woon gereg yi waaye ñu dem ba troisième siècle avant Jésus-Christ mu mel ni seen jumba dafa fay jullit ñi ñëw nag alquran ñaax leen ci bëgg xam-xam alquran li mu njëkk digle du julli du wóor du joxe asaka du dem màkka du baax ci sa ñaari waajur mais liy baaxal yi yëpp la njëkk a digle muy jàng muy xam-xam kooku rek doy na tegtal ci taxawaayu lislaam ak ci xarañam liy baaxal la njëkk a tàmbale muy iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insana min alaqin iqra jàngal jàng mooy maye xam-xam si xale yi tey bi ñuy jàngatul nekk ci culture nga bi néew yi dellu gannaaw bu baax alxuraan mi ngi leen di bàyyiloo culture nga bi dem ci lecture ak gëm téere ak jàng loolu la alxuraan njëkk a santaane xam-xam yi bi ñu seetee ci alxuraan war a mat sept cent cinquante versets coraniques yuy digle jàng kese loolu li ñëw ci fiq tolluwul noonu ci ayatul ahkaam bokk ci aaya yooyu yàlla subhanahu wa taala di ci wax liyastawi alladina ku xam ak ku xamul ndax mën nañu yépp wax ji foofu la ko yàlla gàttal xool nation yi xool individu yi xool ku mel ni Cheikh muhyiddin Diallo mi ak mbooleem ñu joxoon ci xam xam-xam nga nattale leen ak ñi ko joxoon nga dégg aaya ko jàttak yàlla waxaan ne innama yaxsha allaha min ibadihi alulama ulama mu dem ba ci mujjëg aaya ba man yuti illaha wayet man wayettaq fa ulaika hum faizun ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla gu leer goo mën a expliquer waa jamono nit ñëpp ñu dégg ko mu ne ci xam-xam rek la mën a laal Cheikh Mouhidine misaal la ci ak aaya yu jaar sept cent cinquante verset coranique boo ñëwee ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam même bëri waay boobu ci woote ci xam-xam يلا حديث بإمام البخاري صلو طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة جانب obligation على alors que les conventions internationales en matière de droits culturels de l'homme ñoom la ñuy wax droit à l'éducation l'islam n'est pas le woyof na loolu tuuti na loolu néew na jàng du droit mais obligation hadis bi loolu parce que droit moy lo xam ya ko mom bu la neexee nga jëfëndiko ko bu la neexee nga bañ ko jëfëndiko te kenn du la ci sanctionné kenn du la ci yedd kenn du la ci wax dara obligation nag amul droit bàyyi ko boko ko mo mu ci sa dundu ak jagaati ak tarbe ak yu bare bare feeñ ci sa allah surtout ko jangul yalla tuba bi jangul ni nañ ëpp na ñu yalla motax ñu tarbe ni ñu tarbe ak xadis yu dul jeex kon jullit ñi loolu la ñu xam-xam amuñ ci woon frontière ci côté diine ci côté làkku arab adduna bi fu xam-xam nekk ci perse yi ci égyptiens yi ci grec yi la nekkoon ñi dem jëli ko traduire ko ci làkku arab loolu naroon a sànku sax mu ci sànku nga tubaab yi tey dañuy tuddee seen bopp civilisation judéo-chrétienne waaye li ñu jëlee ci lislaam li ñu jëlee ci jullit ñi ci gëmloo gi leen alxuraan gëmloo xam-xam seen diine gëmloo leen ko jëleewuñ ko ci beneen civilisation moo tax kooku wax loolu wax mu ne waaye tubaab yi nag dañu bëgg réeral